kon yaakaar naa ni sañ sëñ Moustapha hmm. ñoo seetaanandoo vidéo boobu yow yaa ko tànn muy Aïda Samb bul ko sànq hmm. bi nga seetaanee vidéo bi dégg kàddu yi hmm. ban jàngat ak ban commentaire ngay def ci parole yooyu Aïda Samb wax waaw xam nga mooy li ma ci jàngat gi ma ci am mooy kenn wattu sànq lenn lu baax wala lu yiw rawatina nga tënku ci diine tënku ci sharia lu nekk rek war nga ko mën a jox waayam ba doo ko dawee da wala nga di ko sànq maanaam téere la liñ ci mën a bayaan ci liñ ci mën a leeral bari na waaye li ci gën a am solo mooy lu baax kenn du ko sànq lu am valeur kenn du ko caaxaane te nit du sànq avenir am justement loolu loolu laa ci jàngat. jàngat boobu nga ci am. Mhm. tey ñi gis ni que ci biir waay bi daf ci way maanaam nga gis doomu aadama di dem nga jóg dem ci sëriñ pexe liggéey ko. sànk ko wala nit kuy sëy sëyam dox nga dem ci sëriñ pour dëddale kook jëkkëram te loolu yëpp ci yéen lay ñëw ndaxte yéenay sëriñ yi lu tax ngeen di jëfandikoo yooyu ngir xaalis nit ñëw indil la xaalis pour yàq doomu aadama en tant que sëriñ tey borom xam-xam nga sëriñ nga loolu moo tax ñu teg la fi lu waral tey xaalis gënal leen yàlla suñu borom waaw Tans da nga jum ci question bi danga war na wax ne lu tax ne ci yéen non ma de sëriñ laay wax man damay généralise damay wax ak bi léegi nag yow yaay tontu si ñi koy ah. def ak ñi ko dul def. waaw moo tax ma ne la. Tange. Mhm. question bi su ma ne la da nga jum da nga jum xam nga luñ jumte gi. waaw da nga waroon wax ne am na ci ñenn ci yéen ñoo xam ne ñoo xam ne xaalis leen gënal lu ñu mën a am lu ñëpp. déedéet xam nga kuy liggéey nit. ci ah. sëriñ ga jëm. Ah. man mi toog fii. nekk New York. sëriñ laay jàpp rek sëriñ yëpp laay yemal léegi yow mi fi toog tey yow yaay indi gindi ñan ñooy def loolu ak ñan ñooy def loolu loolu taas ak ik sëriñam voilà xam nga tey ku mel ni man mhm. kenn du ma fekk ma toog nga xam nu mu mel ci alquran ak sharia mhm. nga xam nu mu mel ci diine ji mhm. nga di ma yàquloo lu yàlla sàkk maanaam xar sax wala béy sax man kenn du ma ko sànkloo waxuma la ak doomi aadama bu yàlla sàkk man li ma xam ci ku ma ko ñemee ñaan la yàlla mooy luy yokk nit luy aar nit liy tax nit mucc loolu laa gën a euh, ay ci leneen lu mu mën a dox ci àdduna. luy aar nit. luy aar nit. Mm-hmm. luy ubbi nit. luy ubbi nit. ak li nga xam ne ni mooy tax nit lépp lu mën a nekk rek mu gérer ko maanaam mucc. mucc tey yow ci loolu ngay yëngu noonu. Mm-hmm. ban xam-xam ngay utiliser alxuraan ngay utiliser. Mm-hmm. magie ngay utiliser. fétiche ngay utiliser wala sacrifice ban nga ciy jëfandikoo. man alxuraan kese laay jëfandikoo. alquran kese laa jëfandikoo. ci alquran boobu ngay fajalee nit ñi seen soxla. ci alquran jooju laay fajale te lépp ci alquran ma di ko jëfandikoo kurus la. kurus maanaam man dama gëm. dama gëm secret mag ñi. secret mag ñi mag ñi. Ah, uh-huh. dama gëm kurus. Mm-hmm. xam nga tey temps soo may tuuti. yaa ngi gis xalifa naa di Tijaan ñu ngi koy ñaanal yàlla yaa yàggal ko fi xam nga lu mu wax. amiin waaw dafa ne na ngeen jàng astaghfirullah. astaghfirullah 111. 111 mu teg saatul faatiha 111. 111 salaatul faatiha. teg ci maanaam euh, lu ñuy wax yaakaafi. yaakaafi yaakaafi 111. teg ci hasbunallaahu wa ni'mal wakiil xam nga lan la. Hmm? astaghfirullah 111 xam nga ban isminaa la sama jàpp. loolu laa bëgg nga wax moom. bu ñuy wax yaakaafi ak bu ñu wax xutbu xutbu. xutbu xutbu. Hmm. yooyu yëpp boo ko xaddadee 111 la lay jox. Hmm. te euh, am na ci isminaa la sam bi mu jàpp bi mu yaakaar sax ne moo tax xalif bi joxe ko am na isminaa la sam boo xam ne. xam nga dañuy wax ne Ismaïla Sarr mi quatre vingt la dama ne téeméer la bi nga xam ne nee nañ ko xam seeram aram na safara. léegi tax nga ne téeméer la te na quatre-vingt-dix-neuf la. non non xam nga Ismaïla Sarr uh-huh. dañ naan la quatre vingt la. waaw ak bi ñu nëbb bu nga xam ne nee ku xam seeram aram na safara. kon téeméer la. boobu nag laa uh-huh. boo ko xadd dee. Uh-huh. mu ngi lay jox cent ku xam seeram aram na safara. général bi lim jox yëpp mooy lim bëgg mooy ñu hasbunallahu bu mhm. ma ne ma wëkkil gi mu joxe mhm. dafa joxe li mu cent onze mhm. li mu cent onze mooy jàpp allahu kon lépp dafa dellu ci subhanahu wa taala maanaam li mu joxe boo ko boo ko seetee ba seet ko mooy dara mën tax ñu mucc lu dul ñu dellu ci suñu borom bi subhanahu wa taala mooy yaa onze dinaa laa sam boo xam ne ku xam mucc nga teg ci hasbunallahu li mu wëkkil li mu soixante six kon lépp li muy firndeel mooy bu caaxaan jeexee dëgg na fi lu waay jàpp lu ak sunna la nga jàpp dëggarut te ku mën a dox lépp ku waay di ñaan yàlla lu dul alxuraan ak sunna la ngay ñaan loolu ñaanu moo tax man course laa gëm. dëgg istixfaar salaatul faati laa ilaha illallah ak ismala laxsam bu waay mën a am mu mu mu soqee ko ci alxuraan ak sunna ma jëfandikoo li laa xam. tey yow bi yàlla may ngay jëfandikoo alxuraan nee nañu mooy jëkk te mooy mujj mooy dëgg ndaxte suñu borom moo ko wàccee. Mhm. tey umpalewu na am na ñoo xamante ni tey ñu ngi ci réew mi. Mhm. di jëfandikoo magie. Mhm. tey ban différence moo nekk ci diggante alxuraan bi ngay def ak magie bi nit ñi di utiliser ak fétiche. mu ngi mel ni. Uh-huh. Euh, da nga ne ana ñu na ma dem safara ëllëg. Uh-huh. ak ñi war a dugg aljana la mooy seen différence def lu baax mooy seen différence. taas dama ne la. Uh-huh. mbooleem koo xam ne yaa ngi ñaan yàlla te ñaanoo ci alquran. dama ne la yow bàyyil xel ne la nga nekk mbiru shayatin la. shayatin mooy seytaane mooy seytaane. boo ci tuubut te bàyyoo ko léegi boo dee bàyyil xel ne safara nga jëm yow ak ak iblis yene bokk dugg a aljana kooku sikk sàkk amu ci beneen bi nit ñi dañoo war a xam ne dellu ci yàlla mooy dëgg képp kuñ topp yàlla tax ñu topp la gis nga ay match ay yooyu noonu ay sacrifice yooyu xamut lenn lu mën a defar temps ah. seytaane mboolem lum xëy tabax ko balaa jant bee sox mu daane delluwaat si delluwaat si. dama ne seytaane. waaw boolem lum xëy tabax. balaa 18h si ngoon mu daane ko. maanaam daal ñuy dem ci fétiche yeeg yooyu. Mm. seen dara mën nañu foog ni sotti na waaye du am mujj. ay mujj yàqu. te non seulement day mujj yàqu ba noppi mbëggal suñu borom fekk leen ci. alquran nag lépp lu mu samp nooy gën di màggatee di gën di am wilaaya ak maqaama ak daraja kon nit ñi seen bopp ñoor bëgg lu sell bëgg lu set. amu ci kenn ku am soxna koo xam ne sa jabar xalaat na tibb la añ ci bool bu tilim du ko def kon yàlla subhaanahu wa taala moom it du recevoir nit ku tilim dootu ko sa jikko sëñ Moustapha keroog dañ doon seetaan 2STV benn émission boo xamante ni Bijou Ngoné moo ko doon def mhm.